mbokki Matam asalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant daanaka daanaka li ñu waroon a uh, wax ci déclaration wax nañ ko ci biir ba noppi waaye li waa organisation bi wax rek mënuñu ñëw fekk dëkk bi yëpp génn taxaw ñu dugg ci biir marché bi génnaat te duñ leen nuyoo kon dañuy saafonteeg yéen rek di leen masawu ci naaj bu tàng bi. di leen di leen di leen jottali nuyoo son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye yéen ñëpp xam ngeen ni moom moo waroon ñëw ci journée bi waaye yàlla dafa def mu tombeek sommet bi am Chine moo tax mu ne foofu waaye sànq bi may ñëw ci suba rek mu ngi may waxaat ni bu ñu bu ma ñëwee naa feddali ay nuyoom ay cantam ak waa Fouta yëpp rawatina waa Matam nga xam ne ci campagne électorale bi dalal ngeen ko fi. li ñu fi andi woon nag am nañ ci lu suñu njort parce que wax naa ni yéen waa Matam yéen a tebbeegum premier prix ci journée set setal yi ndax vous avez fait une mobilisation exceptionnelle kon maa ngi leen di jottali satisfaction président Diomaye ak sama satisfaction man en tant que chef du gouvernement. di leen gën a ñaax nag di leen gën a ñaax ci journée yi ngeen continuer ko saxal. c'est pas parce que premier ministre ngi ñëw nit ñi génn. journée bii di ñëw day tombeek veille ouverture des classes ñuy ñaan jeunesse su bi yëpp ngeen dugg ci école yi parce que day fekk ñuy génn ci nawet bi désherber nettoyer defaraat ba suñu rakk yi mun a jàng dans de bonnes condition di ko demander à l'ensemble de la jeunesse du Sénégal bu loolu weesoo nag ma ma présenté samay condoléances di jaale ñoo ñu nga xam ne fële ci Nabadji Civol seen bakkan rot na ci ci accident bi am ci gaal gi di ñaan yàlla mu yërëm leen te jégal leen di wax nag engagement gouvernement bi yeggali pont bi nga xam ne moo dox diggante Nabadji Civol ak euh, Cubalel ci anam yu gën a gaaw waaye en ñi ngi wax population yi surtout dëkk foofu nañuy fagaru di takk li ñuy wax gilet de sauvetage yi parce que dina sauver ay vie bu accident amee ba gaal bënn wala gaal xar ñaar ñaare li mën a sauver nit ñi mooy gilet sauvetage bi ñu takk kon ñuy insister ci loolu ngir yàlla ne nit ñi di gën a góor di takk gilet de sauvetage yi mbokki Matam may daanee kàddu gi mooy da ngeen fal seen président lipp ëpp ñi fi nekk ay xale lañu ngeen fal président boo xam ne xale bu ndaw la mu ne leen président boobu ne leen dina soppi réew mi man may chef de gouvernement am yàgg leen wax pendant dix ans que soppi réew mi incha allah dinañ soppi réew mi ba yéen ñëpp ngeen sentir ko fii nag ci Matam Matam dafa war a nekk benn ci pôle yi nga xam ne mooy pôle régionaux de développement yi priorité bi di mbay mi d'abord mbay mi parce que ku wax Matam wax mbay priorité bi di càmm gi tamit ndax ñëpp xam nañ ni samay maam alpulaar ay ay sàmm lañu ñaari yooyu dafa di ñaari pilier économique yoo xam ne lii ñuy présenté fan yi ci weer wii ñu nekk mooy le nouveau référentiel des politiques publiques di ngeen gis ci mbay mi ak càmb gi ñoo nekk ci xol bi waaye maatam am loo xam ne si lu am solo la ñu koy wax phosphate ñu am ci quantité boo xam ne fii amul fenn ci Sénégal am ci qualité boo xam ne fii néew na ci àdduna bi waaye ñi fi nekkoon seen option moo ne woon jox ay nit phosphate bi ñu koy exploité di génne bitim réew ñun lool du suñu option ñi wax waa Matam ni phosphate bi bu soobee yàlla fii lañ koy exploité fii lañ koy transformé fii lañ koy distribué te buñ ko defee dina créer des milliers et des milliers d'emplois ba waa Matam mën a toog fii waaye biñ ko defee tamit lañ ciy jëlee ci engrais ndax xam ngeen ni phosphate mooy defar engrais loolu rek mën na suqali Sénégal yépp ba andi excédent boo xam ne koy jaay bitim réew kon c'est pas le moment décliner programme bi waaye na dama leen ci bëggoon seppil tuuti rek wax leen ni yàqkat yi ñu ngi wër di wax gis nga ma jox leen misaal bu ndaw gis nga kër fii de suñu këru sëriñ la ma koy ziyaare di ko nuyu di feddali suñu kóllëre waaye kër gi ngeen gis nii ci ñaata fan lañ ko tabax ci ñaata weer lañ ko tabax léegi su dee kër gi tabax nañ ko ci ay weeri weer wala sax ci ay at ku leen ne Sénégal mun nañ ko tabax ci ñaari weer wala ñetti weer di ngeen ko gëm ñoom ñi fi def ñoom ñi ñoom ñi fi def douze te tabaxuñu Sénégal ñun ñu def ñeenti weer ñu ne tabaxaguñu Sénégal li ma leen bëgg a wax mooy lu simple Sénégal bu ñu pareeg Sénégal ñun Sénégal dañ ko tudd ci pays développé bu soobee yàlla loolu ñun ñoo leen ko ak problème moo tax lenn rek la soxla ci population bi lenn rek la soxla ci population bi mooy ngeen takku nekk suñu wet waxuma suñu gannaaw de da ngeen di takku nekk suñu wet parce que réew waa réew maa koy defar ñiy jiite li ñu leen laaj mooy nañu am gis-gis bu leer nañu am programme bu rafet na seen loxo set nañu bëgg réew mi te loolu lépp nag am na ci ñi ngeen jiital kon la ci des mooy askan wi faites bloc derrière votre gouvernement accompagnez votre président de la république loolu suñ ko defee ci at yi ñu ñëw yéen ñëpp di ngeen gis un changement profond et structurel au Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen accueil asalaamaaleykum